li nga euh, nekk sportif yëpp tam homme d'affaires nga lan moo euh, war a tax ñu mën a gaaw gaaw euh, saafara tawatu gone yi. waaw xam nga li ci ëpp solo rek mooy président àdduna ci te dafa mel ni teel na comprendre situation bi parce que jafe-jafe yi du tey la commencé pandémie bi ñëw gën a jaxase carte gi jot na wax tuuti effort yu mu ci defoon mais li may li ci xaw a dalal suma xel tuuti daal te du tee dañuy xippi sunuy bët di xool wax na ko xam na ni jafe-jafe am na ndaw ñi ñu baree bare liggéeyuñu ba tey des fois da ngay dégg sax ñi bokk ci Pastef ne la lii du affaire u Pastef Sénégal la li tax muy senegal mooy am na crise bu jiite woon affaire Sonko ak yu bëree bëri moom la gars yi dajale président yi comprendre na loolu ah defaat na ay promessam ñu ngi xaar mais encore une fois in faut que ñu gën a bàyyi jeunes yi xel parce que dafa am système yoo xam ni baaxul dama lay joxe exemple aux États-Unis bu demee États-Unis tey man dimanche dama daa xëy rek dem ay White Plain Gun Hill da nga gis ñoo xam ne ñu ñàkk ba amuñu dara te boo demee downtown da nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci kaw asamaan si te déséquilibre boobu baaxul des fois moom mooy euh, indi yenn yi ndax la nga gis ne ñen ñi wo ci kaw wala bok ñen ñi am dañoo dem ba beew melni sax ñi euh, xoqatal ñeneen ña euh, du ma wax beew duma ma mais déséquilibre am na parce que moo indi frustration bi des fois sax di nga la deful dara moo tax daal dañuy wax président ak équipe am ñu gën a bàyyi xel dëkk bi bàyyi xel ndaw ñi parce que nag dëkk euh, ndaw moo koy liggéey mais na fekk mu am ci lu mu jàpp. <laughs> ndaw ñooñu est-ce que ñenn ñi aussi pas ñëpp euh, ñenn ñi dañoo bëgg a teel tekki. pas teel tekki bu ñu nee ndaw ñi xam nga état mënul jox ñëpp hmm. parce que nag boo xëyee muy man muy yow da ngay dem wuti loo am. mais am na loo xam ne dafa war état parce que loolu lañ diggaaleeg ñoom c'est pas pour rien ñu nekkat kat diw mi mooy président de la république Macky Sall loolu bu tegoo sa kaw rek dafa am loo war pour sa dëkk voilà. Mhm. yow xam nañ ni euh, laata ngay nekk euh, mbër. ba doon ci champion. Mhm. ci géej gi nga nekkoon. doon nappkat ba tey mool la ah. <laughs> ba tey mais misaal ci napp googu nga xam ni. gone yi gisatuñu seen bopp moo waraloon jëlum gaal gi jamono yële mu takkar lancé woon lool lan moo yàq euh, loola. géej gi lu ko yàq du gone du gone yi rek. Mm-hmm. Euh, géej man dafa bokk ci li ma gën a ñor parce que moom laa xam dama bàyyi géej ñëw ci làmb ji te géej gi mi ngi gën a yàqu te vraiment taxawaay ci kilifa yi am dama ko xeeb trop parce que nag. boo xoolee li ko jële Saint-Louis ba Jembereng wax dëgg ñi yaakaar ci géej dañu bari torop torop sax te géej gi surpêche rek moo ko sonal bato yi napp gu ëpp gi waaw bato yi dañu bari gaalu looco yi te loolu état rek moo ci mën dara il faut ñu organiser waat géej gi sinon ci kanam tuuti dootuñu gis benn jën dañuy joxoñ bato yu mag yi rawat na yu jóge bitim réew waaye ñii fii réew mi tamit am nañ ci wàll. bato yu mag yi ñu ngi yàq mais gaaluloo ci yi mooy pêche artisanale bi li mu yàq dafa bari parce que dañu bari te géej gi amatul organisation géej yu démb ak tey bokkul parce que booba gaal yi barewuñu nii bu ñu demee ba gën a bari dafay laaj organisation te loolu buur rek ko mën exemple lay joxe dañu wax fanaan ak bëccëg mooy mbaal napp guddi ak napp bëccëg. napp guddi mooy fanaan bu ñu nee napp guddi tey huit mois dafa bari pour géej jën il faut mu am temps bu koy permettre mu produire bu fekkee ñi ci géej gi guddeeg bëccëg yaakaar naa un jour dootuñu gis benn jën ah. te loolu nag man daf ma ñor ma koy yeggee kilifa gi président de la république mu xoolaat wàllu géej gi waxtaan ak ñi ko xam dëgg jéem ñu ko organiser laat mais est-ce que nous nous nu Nous Nous euh, est-ce que du situation yi ndaw ñi nous amuñu fu jëm nous dem euh, dem ci nous gi. non dem nappi xam nga Sénégal pas newuñ ci Nous nga ne euh, du mais dañoo mujjé dugg ci walum nap waaw jamono fay dox xam nga ci 16 millions et quelques hmm. avant matul donc bu jamono di dox. Euh, àdduna dafay gën a ubbeeku am na ñoo xam tey ñu ngi dem di bay ay mool lañu ñu woon ñii ñu ngi doon bay tey ay <coughs> mool lañu ñu kon euh, jamono dafay dox et plus ñuy dem plus mu gën a yokk parce que nag ku dund ku dund rek bëgg ngaa jàpp ci la da xool fi nga am yaakaar nga jublu ci géej moom mënul dellu ginnaaw ci nit ñi. Mm-hmm. am na leneen loo xam tam euh, gone yi yaakaaroon nañ ci euh, jëm kanam mooy euh, sport bi ngay def di làmb gis nañ ni laata sax crise bii di xew tàmbale woon naa sooxe lan moo mën a suqali écurie yi suqali làmb yi professionnaliser ko ba gone yi gis ci seen bopp yéen ba ngeen cay nekk sax yéen rek a ca fasoon waaye ñi toppoon seen ginnaaw yëpp daanaka mënuñoo jàpp ci ci dara est-ce que secteur boo xam ne tey mën nañ ko organiser ba mu gën a jur yokkute secteur boobu par exemple. si làmp mën nañ ko organiser mais dafay doon waxtaan xam nga secteur boo gis comme li ma wax léegi dafa am ñoo xam ne mënuñ cee ñàkk mais par exemple boo nee ministre laa rek bu dara xewee da ngay xool ñi la doy. ah def ko ci sa façon làmb romb na foofu comme ni nga ko waxee man bàyyi naa làmb léegi def na juróomi at mbër yi wàññeeku ñu dañuy yokk xëy na li amoon ci làmb ji yenn sponsor yi ñëwatuñu mais liggéey la parce que nag boo xoolee 92 daay wax wala 94 bi ñuy ñëw ci làmb ji làmb melul woon nii loolu liggéey la boo xam ne. comité bi fi ne newoon liggéey na ci acteurs yi ah promoteurs yi mais càggante am na ci parce nag yaa ko wax yaa wax léegi professionnalisme professionnalisme lu ñuy waxtaanee la duñ koy bind ay acte lay doon yooyu teg waxtaan ak ñi nga war a waxtaan mais ba tey da ngay gis ne comme ni nga ko waxee lu baree bari des na te bu ñu góor góor loolu vraiment dafay gën a métti bi gën metti boo wàccee ci place bi fi mu ne booy yi ak crise beeg yëpp ñu ngi entraîné ñu ngi rey seen bopp mais kañ la ñu bëree làmb boo bëreetu rek dootoo mbër. ndax da nga jàpp ne ministre bi ci wàllu boppam. waaw ni mu yoree làmb ji ni ma koy gérer ñi ci war a dugal seeni loxo ñi ñu ci war a woo woowu leen. waaw du woowul ñëpp mais boo yoree mbir da nga siy ñemee boo xoolee tey comité bi fi ne li ci ne ci doomu aadama kenn xamul ne mu tool loolu amul njariñ parce que mënoo yor mbir te kenn du mer boo bëggee defar da ngay xool ñi la doy ñi nga xam ne am nañ yàgg waxtaan ak nit ñi ñu wax la seen xalaat nga jël li fi ne boo xoolee CNG bi fi ne 94 ba. 2020 2020 dem nañ ba benn moment ñu jeexal parce que lépp loo gis day jeex dootoo mën a liggéey mais def nañ fi te groupe la woon rek boo xam ne bu dee 20 personnes ci lay yem te am na lu fi def mais mënoo jël 1000 personnes bugg leen def ci benn comité duñ liggéey. bureau bi bari na nit conseil yi bari na. kenn xamul lu mu toll loolu làmbatu la làmbatu la te nag làmb du politique ba ngay wut ku mer ak ku dul mer xoolale dal sa nga def ko loolu mooy liggéey. kon lam di dañ koy politique waaw parce que bu fekkee bëgguloo kenn mer parce que da ngay politique politicien mooy def ku yëngatu rek mu woo ne la sëggal ma sëgg nga dóor yaat après non sport loolu. am na ñu am surprise lool mbetteel bi ñu la gisul ci biir CNG bu bees bi ndax bu allin Sarr ba yaa nga ca woon ñu gis moot ndaw Ndao Tyson dugg yow yaa jóg dugguloo loolu moo tax ànduloo ci niñ ko niñ ko naalee ànduloo ci ni ñu taxawalee CNG bu bees bi loolu la. noo du du ànduma ci euh, encore une fois ma dugg ak ma ñàkk dugg amul différence parce que nag yàlla sénégalais yàlla daf leen may xel bu ma ci duggul tey keneen a ngi ci. mais li may wax mooy boo jëlee mille personnes def leen ci benn mbir ci loo xam ne wax dëgg doxal ko laajul vingt personnes day am lu mu nuru foofu rek lay waxee. poste conseiller lañ gën gënoon yaakaar ci nga bokkoon ci liste wu njëkk ya pourquoi continuer woo ko. waaw parce que nag xam nga CNG comme kan fayuma da ngay xëy dem toog 17 heures ba 21 heures am na loo xam ne boo gisee nu dem doo fa taxaw man noonu lay fonctionner. même suma liggéey bu ma gisee lu baaxul dama koy bàyyi seeti leneen asama ak loo xam ne kenn fayu la ci. Mm-hmm. est-ce que lu li mu ndaw dugg si mu ndaw Tyson li mu dugg si euh, bokk na ci li tax nga ni damay génn. wala non non maa moom ñoo fa duggandoo mel ni mais da ngaa rocceeku woon. waaw parce que dem naa demaat xam nga des fois daanaa dem ñëw exemple rek laa lay laay joxe six wala cinq personnes yooy ñëw. ba des fois sax réunion du am ngeen dem ñibbi boo ko defee defaat ko daga naan lii effectivement la fi ne parce que def ans da ngay ay mag woon loolu wax ngeen ñu baal ma nañ ma mais dañu kenn waxul mais loo gis àdduna day jeex. Euh, si àndaloo ci ministre bi ni mu taxawalee CNG bi àndoo ci président CNG bu bees bi. Euh, waxuma ànduma ci président CNG bi. waaw mini mais boo boo àndul ci nit ñu sampe yi fi kay mooy. Euh, waxuma ci euh, àndoo ci dara. président CNG bi suma mbokk la nijaay la ci man. Mhm. originaire u Baasul la comme man ñoo bokk benn maam. Mhm. ministre bi aw ak moom problème. li may wax mooy wax nga ko léegi comité bi fi ne nit ñi si ne yëpp lu ñu jëriñ. defuñu fa dara jëlal benn vingt personnes bu baree ba pare trente personnes ñu liggéey normal man noonu laa gisee ah. kon noo gisee ëllëgu làmb ji léegi ginnaaw gis nga ni ñi ko yor niñ leen taxawalee dafa des baaxul. waaw defaraat rek xam nga nag am na loo xam ne man mënuma koo dogal mais dama naan xëy na un jour dina jeex ñu am ministre boo xam ne xalaatam dina ma doy man nag li may wax man la concerné. waxuma ñëpp noonu la ñuy mais mais daal euh, sport de politique les gàttal. léegi euh, lamb ji dafa taxaw. depuis mbas mi ba léegi. Euh, ñu ngi annoncé reprise bi reprise saison saison bi njiitu réew mi nee état d'urgence sanitaire bi le 19 lay jeex xanaa daañu ubbi stade yeeg. Hmm loolu xanaa ngeen laaj euh, ministre bi ak ñooñu xaw ma <laughs> ñu beeg bu njël bloc bi mais daal làmbu sport moom sport la. mais est-ce que du doon liy gën ku teggi état d'urgence sanitaire war a ubbi stade yi. waaw xam nga loolu tey bu ma ciy wax day mel ni gumba buy dox parce que xaw ma ci dara xaw ma dina ubbeeg du ubbi. non normalement ubbi na officiellement depuis le 1er mars waaye dañ ni avec un protocole sanitaire sanitaire ñi ngi wax euh, làmb huis clos. musta am lamb huis clos moom euh, bu ñu ko dee def est-ce que mbër mi dina yëg boppam. <laughs> ah man de wax dëgg gisuma ci sam bopp mais xam nga dafa am loo xam ne wax ci dafay xaw doy waar parce que am xale yu ci toll war bëre toog lu yàgg bëre wuñu xëy na mbër yooyu dinañ gis-gis seen bopp mais làmb moom ambiance bi ci ne woon moo tax ñuy wax léegi nag comme ni ma leen waxee rek comme ministre baa ngi fii am na ñu dënk làmb ji ñoom ñooy gën a xool bu baax. <laughs> la meh, def mais est-ce que euh, ginnaaw jamono dafa naqari. waaw euh, mbër yi tam waruñoo xoolaat cachet yi. Euh, bës ko wàcc ko ngir ay combat di am wala da nga foog ni de fa ñu tolloon rek war a toll di laaj lañ daan laaj. waaw non mbër yi comprendre nañu li xew. na li doon am. ah yaakaar naa mënatul am. mais ñoom xam nañ yaakaar naa xam nañ li xew. loolu waxtaanu mbër lay doon rek ak promoteur. même ñun biñ ciy nekk. promoteur daana ne si jafe-jafe nga génnee ko ci nga wàññil ko waaw loolu commencé wul tey. Mhm. Georges. min ministre des sports ministre de la justice nee nga xale yi toog nañ lu yàgg <laughs> bëriwuñ ministre de la justice xam naa déglu nga ko France 24 kaddu yi mu yëkki ne ndaw yi ndaw yi génnoon moom mooy mbër yi. waaw loolu moom euh, wax dëgg wax ju amul bopp amul genn loolu. lan wax mais erreur bu mag a mag la te wax dëgg loolu amul sens parce que mbër yi yaakaar naa tey am te ñi seetaan xam nañ ne du ñu it mais loolu amul sens exemple laa lay jox man tey bu ma gisee mbër bëgg def yenn ni dama ko naan déet bu ko def bi may euh, suma xarit dafa yor station fii Total mooy ñaari station Total di jàkk ngeen baal ma ci publicité bi ah. amul problème dafa ma woo vingt trois looloo tax sax ma dem fa parce que ñu bari comprendre ñu ne ma ah dimbale ma ci sa booy yi parce que ñi ngi may attaqué te dañuy taal station bi am na sax ku ma woo mi ngi may dégg kal de guerre ba ci yàgg ma hésité lan laay wax mooy doomu jàmbur boo ko yebalee fële ñu gaañ ko nooy def et puis mbër yi mbër yi ma taal suma oto dem man nag maa moom sam bopp bëreetuma am naa droit gis suma xarit bu jaaxle xam naa ne bu doon moom noonu lay def ma dem jàppale ko vraiment ñu fexe ba yàqu te pourtant gisuñ fa mbër ay mbër a ngi wakaam hmm. kon wax dëgg et puis mbër yi ñoo war a góorgóorluwaat ba fexe kuy waxati lu dul noonu nga jëmale ko feneen mais ministre bi ay wax wax dëgg man considéré wu ma ko daal. Hmm. pour man xëy na ay waxu dox situation ñëw na boo xam ne ñoom maîtriser tuñu ko après mu wax lu ko neex. mais mbër yi ni nga ko waxee war nañ si seen bopp bañ ko leen utiliser ndax yàgg nañ koo hmm. wax. waaw politiciens yi di leen dugal ci lu ne. ñaare nag boo gisee mbër ànd ak politicien wala kilifa seen xaritoo dafay jiitu loolu nit ki bu ngeen àndee ba teraanga ñëw. am na lu mu yaakaar ci yow des fois mu ne la kaay jàppale ma ci lii waxuma nag ñi nga xam ne dañuy toog rek ba dara xew ñu recruter leen ñu dem di fayeeku di def lu leen neex waxuma loolu parce que man am na ay xarit comme ñoo Jean Baptiste biñ buggee yàq station daf ma woo ma dem xaaj nañu ma te bu doon fii ma toog dañ ma woowaat léegi damay demaat. bi ngay wax ni sa carrière jeex na da nga taxawaloon benn structure. ñu yaakaaroon ni di nga commencé yëngu ci làmb ji di tëgg ak ñoom seen waaye boobu ba léegi dégguñu ci lu bari. ñu ngi def lutte simple lu bari sax. Mhm. Euh, lutte simple liñ def waxuma kenn defu ko waaye bariwul. Mhm. ay mbapat ñoom seen. waaw tournoi lutte simple waaw. Mhm. mooy mbapat. jërëjëf sa liggéey bu bees bi nag mooy yar xar loolu moom. Euh, euh, yar xar du suma métier. suma grand frère mooy yar xar. man maa ngi ci yeneen.